asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 11 mars 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay yi moo xam sunu làmb la wala journal record yëglikaay bu ci nekk dafa mel ni olof na mu koy waxee lu def waxu lu ay di njàmbat coowar docteur Alioune ak arbitre yi fi mu nekk nii wala waa CNC bi mooy la mooy coow li fi mu nekk nii ci dëkk bi boo bëggee dëgg-dëgg daal coow laa ngi mel ni tulli ak màlle ci dàqu ñi nga xam ne moo di arbitre yi Gris nag xëy na ci yëglikaay biiru sunu làmb ne na li leer ba leer day kii nga xam ne nii mooy Sitor Ndour Malick Ngom ak ñañu àndal lañ leen def teguwut ci aw yoon te jëkkul jaaduwul moo tax Gris jàpp na ne day kii nga xam ne nii moo di Alioune Sarr moom dañ ko fe war a jële dàq ko mu dem aw yoonam loolu ma xi ki nga xam ne nii moo di Gris Bordeaux ndax moom daa jàpp ne li Alioune Sarr di def dictature mënu koo romb maanaam daal jël aw askan jiite leen ba pare nekk buur def sa bopp ab roi loola neex ngay def loola neex ngay wax te kenn sañ te wax moo tax giri ne ne day daq ko mu dem lees war a def ba pare tas lii nga xam ne nii mooy kuréel gi mu jiite muy seen bi yore làmb ji loolu moo waxi ki nga xam ne nii moo di Gris Bordeaux mu mel ni ki nag coow li mu ngi ne gàtt fi mu nekk nii soo bëggee dégg dëgg Alioune daal na dem loolu mooy wax ka nga xam ne moo di Gris doo mu mel ni kii nag ka nga xam ne nii wala ña nga xam ne nii ñoo di arbitre moom tey jii la ñu fas yéene daje daal di nag xool ñoom naka la ñuy def wala boob wan yoon la ñuy amu ab réunion daal dinañ ko amal tey ñoom ñi nga xam ne nii ñoom ñoo di arbitre yi ka nga xam ne nag moo di Doudou Diagne Diéck moom la mu jàpp ne na kii nga xam ne nii day wala boog décision bi nga xam ne moom la waa CNG bi jël jëmale ko ci arbitre yi moom Doudou Diagne dafa jàpp ne day lu diis a diis a diis la bo diis gan gann daal def na ko booy kayre moom ne na la ñu def ñoom la engagé ñoom ñi ko def waaye engagé wul kenn wala boog ñenn ci nit ñi xanaa kay ñoom ñu fi ne rek di def lu leen neex ñoom la engagé bu ñu demee journal record moom Sitor Ndour mu nga fay wax Sitor daal nee na xeex bi moom mu ngi door a commencé ndax nag dañu leen déclaré guerre te nee na dañ defante ak ñoom ba mu saf sap ba nga xam ne nii moom ku ne da nga yëg la ñu def loolu mooy waxi ki nga xam ne moo di Sitor Ndour keneen koo xam ne tamit wala ñeneen ñoo xam ne keneen koo xam ne moom wax na muy ki nga xam ne moo di Saliou Diouf ma nga xam ne mu ji jiite Amalda nee na Alioune Sarr daa war a arrêté taxaw la war a def yëfi gendarmerie yi mu nekkee lu ko neex wàllam di dóore rek nee na lii moom dafa war a dakk te jeex loolu mooy li nga xam ne nii daal mooy li mu war a def bàyyi li nga xam ne nii moom lay def jëmale ko ci kaw ñi nga xam ne nii mooy waa axlu làmb rawatina ñi nga xam ne nii moo di arbitre yi waaye amateur yi tamit day daa mel ni ca sunu làmb ñoom itam gis-gis boobu la ñu amee maanaam daal sax lii moom kenn da cee àndul ku nekk daal xëy nga tey joxe si ca xalaat maanaam daal boo bëggee dégg-dégg moom coow li moom fi mu nekk nii mu nga ne gàdd kenn ku ne yaa ngay wax leneen loo xam ne nag dañ cay dem muy wàllum bëre bi ba tey rek ci làmb ji ki nga xam ne nii nag moo di jet li ak fiche de Zallo moom boo bëggee dégg-dégg seen recours yi ñu dugaloon daa mel ni amuñu ca ndam de gaaya daal daa mel ni dañ leen a xamal leen ne daal recours yooyu moom seeti leen leneen waaye seeni i combat ñaar ñooñu ñàkk ngeen ko mel ni kii nag loolu moo ngi nekk fi nga xam ne ni mooy ca sunu làmb keneen koo xam ne moom dafa bëre ba daan wala ñu bëree ba daanante muy diggante Franc ak ka nga xam ne moo di bébé Saloum mu ni ki nag seen combat boobu ñu bëre woon moom seen seet dagg leen lu toll ci quatre cent douze mille cinq cent daal kera ko ci bés boobu nga xam ne ni la ñu doon bëre bëre ñii moom bëre la ñuy waajal moo tax seenam komba taxaw na muy diggante Ada Fass ak ki nga xam ne nii moo di Tapha Mbeur kafa jaar nag mooy Fallou Ndiaye moo tëkk boobu combat combat ba nag mois de juillet lañu ñu ko fas yéenee bëre yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi tamit dañuy fekk Franc fa nga xam ne moo di sunu làmb faraa nag moom adversaire yañ koy wax moo xam rëg-rëg la ak keneen Franc na li leer ba leer moom pare na ngir bëre ak ku mu mën a doon loolu mooy wax ki nga xam ne ni moo di Franc bu nu demee ci yëglikaay bi ba tey di sunu làmb xëy na wan ñu affiche bu rafet a rafet muy Franc ak Elton Franc neuf combats neuf victoire Elton moom mu ngi te 14 victoire ak 6 défaites moo tax yëglikaay bi xam naa sampub laaj ne est-ce que loolu moom du ab combat mu mel ni ki ñaari mbër yooyu moom xëy nañu ñu fësal leen foofa kii nga xam ne nii moo di Franc ak ka nga xam ne moo di Elton Jax moom diggante Alaaji Mbay ak Big Pato moom combat ba jàpp na daal la 14 juin la ko fas yéenee li nga xam ne nii moo di amal moom Jax daal moo tëgg boobu combat nga xam ne mois de juin la ko fas yéenee tëgg kon daal mu mel ni ki daal tey li leer ba leer loolu moo fi ñëwoon tey ci yi waaye coow li fi mu nekk nii daal Moussa loo ci mën a dégg takkar naase na ci diggante ñi nga xam ne nii moo di CNG bi ak arbitre yi waaye yaakaar naa daal dàq est-ce que mooy solution ndax waxtaan gënul woon ñuy dàqaate. mbokk waa Leewtoo TV ñu leen nuyu di leen leen sant Babacar ngeen àndiloon si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen nag si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu dinaa la nag tey nag ñaanal rek nu gën a dox si mun mun a dem quart de finale. maa ngi lay fay ah, di nuyu internet yëpp. ah waaw tey de am ngeen match bu rëy rëy rëy waaye nag fi mu nekk nii moom balaa ngay ñaanal sa bopp <laughs> balaa ngay tal jaamur tal sa bopp ci li nga nekk laa nekk rek guddi gu bët setagul lañ nekk ñun ñaari ñëpp a yem waaye yal nañu ñu gagné yal na nga gagné tey yal naa gañee semaine prochaine. Amin Babacar na ñëwoon nag euh, si sunu lamb sunu lamb nag moom ni ngi ba léegi si problème diggante bu dox si diggante euh, arbitre yi ak ki nga xam ne mooy CNG te nag Gris Bordeaux mooy génn moo génn nag wax ay kàddoom daal jëmale si waa CNG euh, ginnaaw nag bu nu dàkkee ñoom ki nga xam ne mooy Sitor ak ki nga xam ne Babacar la ak Babacar Diop ak ki nga xam ne mooy Père moom juróomi at ñoom nag Gris Bordeaux nee nag moom leen gisul lenn lul que Alioune Sarr jóge si kaw bopp ki nga xam ni moom mooy CNG nee na daal Alioune dictature daal lay jaay Babacar. waaw lu doy doy waar la mu mel ni daal coow li moom fi mu nekk nii mu ngi mel ni tulleeg man la ci dëkk bi parce que nag ah euh, am na li am solo daal mooy ki wax nag mooy Gris doo c'est le euh, président des lutteurs en activité moom moo xëy tey génn wax waaye li am solo daal mooy euh, daq Sitor Ndour yaa ngi dégg aj Pierre Malick Ngom 5 moo ko euh, ka nga xam ne ni mooy Babacar Diop Dramé deux ans loolu est-ce que mooy solution bi yaakaaruma ko non non non parce que actuellement boo gisee coow ni mu doxee ak ni ci nit ñi di waxee est-ce que yaa ngi déglu ne kon décision bi ñu jël man dama jàpp ne est-ce que décision bu gën la parce que tamit nga jël décision boo xoolee presque li ëpp ci nit ñi wala presque nit ñëpp ànduñu ak yow ça veut dire que kon yow mi jël décision bi war nga xoolaat décision bi nga jël ban la yaa ngi dégg kon yaakaar naa daal lii am nii pour man waru woon a demee nii parce que euh, xat gi lay na rek wala benn coow am na ñu ne après réunion ngeen wala boog waa ji exposé le problème am après ñu toog ba benn moment ñu ne kat nangam nangam war nañu conseil de discipline nangam sangam wala euh, commission de discipline après rajee nañu kii aj nañu ñii coow li ne nii loolu nag defe naa ak ni mu amee nii ak ñooñu personnalité yi ñu nekk ci làmb tey muy ki nga xam ne nii mooy Sitor ak ñoom Malick Ngom defe naa ne ak ni mu demee nii daal yaakaar naa Alioune Sarr ak ñi mu àndal nañu xoolaat bu baax a baax a baax mbir mi parce que tamit lii defe naa ne la defe naa ñi ëpp tey ci Sénégal bu ci defoon sondage ànduñu ak ñoom ci décision bi nga xam ni moom moo am parce nag euh, Ndeye Coumba dafa doy trop affaire bi ni mu demee nii quoi yéeme na trop trop trop ci sondage boobu sax ngay wax moom la waa sunu laam tamit xëy na jox kàddu ñi nga xam ne mooy amateurs yi ki nga xam ne mooy président des amateurs muy du jànjekko moom daal lu mu gis nee na sanction bi dafa diis trop si par rapport ak ñoom li nga xam ne euh, moom la ñuy réclamer maanaam seen droit assurance ak nu yokk seen pécule yi nag ndax nekkul salaire pécule la rek euh, keneen ki nga xam ne mooy boykere moom daal lu ma gis moom nee na ñoom ñoom i neen la daal seen biir la ndax lu ma gis nee na ñoom bu ñu doon xeex ñoom en tant que euh, mbër yi ñoom ñi nga xam ne ñooy arbitre yi jàppalewuñ leen benn yoon si seen combat boobu tey nag ñoom noo ay donc nag dañ ko gérer daal waaw loolu daal moom moom daa na xëy na arbitre yi li moom xëy na na ko jàpp que ni ko parce que xëy na arbitre yi ba ñoom na amuñoon droit ñoom booba dugg ci booba xeex que engagé wu leen yaa ngi dégg lu naa mais du tax du tekki ka ni tey ñu ne teg li am solo daal mooy lii am nii pour man dama jàpp ne lu ëpp la te loolu la sénégalais yu bari jàpp tey pour man lu ëpp la nit ki fi muy liggéey fa la am droit gis lu ko naqari mu ñaxtu ko fa la am droit jooytu la nga xam ne nii moom la war a jooytu mais nag du da nga koy jooytu rek ñu ne la acca dootoo ko fi jooytu wala jooytu nga ko dañ lay raje à vie wala dañ lay aj loolu moom defe naa ne moom la ñu CNG bi def te loolu la askan wi àndul ak ñoom kon nañu xolaat mbir yi bu baax a baax a baax a baax donc Alioune Sarr comme lu ñu waxoon lañ la ma waxoon laay wax rek am na mu defal làmb lu baree baree baree baree baree bëri mais xëy na yàggaay bi ak itam chaque jour ñu indi la gis moo tax nit ñi dañuy dem ba benn moment dañuy yaakaar ne nag leneen lu bees war na mën a am te effectivement noonu la demee pour man lu bees war na mën a am quoi. Babacar nag ñoo débat yu am fan yi yëpp nag si télé yeeg si journaux yi ak si rajo yi lu ñu gis daal neen daal lu ministre des sports dugal loxoom Babacar yow loolu noo ko gisee waaw ministre des sports ah waaw moom lañu dénk tàggat tàggat yaramu réew mi kon bu problème yu ah, wax dafa war a wax monsieur le ministre monsieur Matar Ba parce que moom tamit comme li ñu ni ni ni ñu ko xamee tëjalul maanaam nekkul nit bu jafee gis wala ku tëj boppam kon yaakaar naa ne fi mu nekk nii Matar Ba ñu koy nuyu di ko ziar war naa wax nag ci mbir yi nga xam ne nii mooy lëmbe dëkk bi fi mu nekk nii muy coow arbitre yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite làmb ji waaw Babacar si CNG boobu la ñuy des nee ñu combat yi nga xam ne moo amoon weekend bi fii nii si arène nationale nee ñu daal CNG dagg na daal mbër yi ñu xam ne ñoom noonu doon bëre à hauteur de 412 000 francs CFA Babacar waaw muy lu doy waar mooy comme li gars yi wax parce que am na ñoom ne boo waxee dañ naan la ñoom nekkiwuñ fi leen lu dagg xaalisu mbër yi yaa ngi dégg euh, kon nag yaakaar naa ne kon ci ku bébé Saloum ak waa ji ak franc ak comme ay ca toftalu la ñu dagg pile de quatre cent et quelques mille quatre cent cinquante mille yu tegal weccet ah mu ngi noonu kon xam na ay sanctions financières la kon daal lool moo lay wan ne daal fi mu nekk nii affaire yi doy na waa trop daal Ada Fass nag ak Tapha Mbeur Fallou Ndiaye taxawal na ko nee nañu nag mois de juillet maanaam si fenn saison bi la ñaar mbër yi war a bëri. combat bu neex waaye Ada Fass Tapha Mbeur <laughs> laa ilaaha illallaah ñuy profité di ci nuyu Fallou Ndiaye ak kuréelam yëpp Ndiaye production ñoom Tapha Mbengue nga gaay fa nekk waaye loo ci mën a dégg taxawal na ko. Tapha nag mooy tam tam mooy. waaw waaw ah waaw papa boo ci noonu na ko day da ngay damm rek xool nga damm ne nga damm naa nga am nga damm na bi yoon du damm waaw. ñeneen ñi nga xam ne nag ñoom bëre woon nañu ba noppi nag ñoom ñaar ñëpp nag déposé recours muy Jet Li ak fils de Zallo ñoom nag bu ku nekk nag man moom moo di wax ne moom moo daan CNG nag moom joxul ndam kenn si ñoom ñaar nee na da leen député comme ni ñu koy waxee. maanaam caatu ngéwél kon ndamam dëggal nañ ko ci kaw fils de Zallo jamtiri ndamam dëggal nañ ci ci kaw Jet Li kon nag loolu moo doon tey recours yi dugaloon ñoom maanaam daal mujj ñu ca am lañ ca doon wur kon nag nañu muñ te dem defaru jiwaat xam ne sport noonu la tëddee Uh-huh. suñu jógee nag sunu laam lañ dem foofu nga xam ne mooy record si xale ma Abou Ndour moom nag dafa xëy dalal ki nga xam ni moom la ñuy rajee à vie muy euh, Sitor Ndour président des arbitres moom nee na combat bi même su fekkee ne rajee nañ ko sax combat bi jeexawul day continuer ndax ñi nga xam ni mooy ñoo ay rakam ñu mën a bénéficier wu si combat bi nga xam ne moom la ñuy kaas ba na rajee leen waaw wax na dëgg de bu dee moom Sitor en tant que ni ñu ko xamee tey moom gëm na ne combat day door a commencé ah waaw c'est normal ah parce tamit bu jàppee ne wala ñoom ñu jàpp ne li ñu aw yoon kon dañu war a taxaw défendre seen bopp jusqu'au bout ba bañ am li ñu soxla wala ñu ñàkk ko ci am xam ne kat fii lañ ca mën a yem mais nag nit ki moom boo nekkee ci benn mbir di ci di ci yëngatu nekk ci ak ñoo xam ne nii sa rakk lañu yaa leen ëpp expérience ëpp leen xam-xam defe naa ne doo jóg seulement ngir défendre sa bopp kese mais nag da ngay fexe défendre intérêt personnel lu ñëpp wala intérêt général boobu laa bëgg a wax pour que ñëpp nga xam ne ni tey combat bi boo ko gañee ku nekk mën ci gis sa bopp même yow boo fa nekkatul sax l'essentiel que fexe nga ba tey ñiy ñëw sa ginnaaw mën a jariñoo combat bu nga xam ne moom nga doon xeex ba day des ci combat boobu noonu ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux tamit àdduna ay kàddu moom nee na ni ngi mobiliser mbër yëpp association des lutteurs en activité ak tamit ñu si nekkul maanaam askanu laam ñoom ñëpp ni ngi mobiliser pour daal ñu jële fi ki nga xam ne mooy Alioune Sarr ci kaw CNG keneen ki nga xam ne nag mooy Saliou Diouf président Amalda moom nee na Alioune Sarr dafa war a bàyyi def yëfu gendarme na xam ne làmb ji du affaire gendarme sport rek la waaw <laughs> ba tey mooy li ma la waxoon sànq rek daa mel ni daal gars yi fi mu nekk nii moom seeni xol jóg na te li ko indi nag xëy na mooy lii mooy sanction bu metti bi nga xam ne ñu bëri dañoo jàpp ne warta demee nii moo tax xam naa Saliou Diouf ak waa amal daa moom mu noonu que ni waaw gendarme nag yaakaar naa ne mooy bi ki nga xam ne nii moom <laughs> waaw ay mbiram daal dafay xaw a doy waar yaa ngi dégg am solo nag mooy daal encore une fois daal ah coow li bëri na de coow nag su bëree moom ah waaw wares naa xoolaat mbir yi de kon ñi jiite làmb ji nañu xoolaat bu baax a baax épité ñu déglu nit ñi ay nit boo leen jiitee da nga leen di déglu yaa ngi dégg danga leen di déglu bu baax a baax di waxtaan ak ñoom di diisoo ak ñoom parce que tamit soo ko defulee rek mën nga dugg ci foo xam ne nii du fokk ak ak fañ la doon xaare Babacar nag si kàddu yu rafet yooyu leen tàggoo di leen jox dig daje suba incha allah mais balaa boobu mooy nuyu suñu yaay meeso nuyu sama doom Mohamed Diouf nuyu ki nga xam ne mooy sama xarit Grand Fallou nuyu Abdou depuis États-Unis Baye Fallou jàmm gën Papa Cité di ki nga xam ne nag moom mooy euh, Ramos Ndiaye depuis Italie ki nga xam ne Khoudia Seck chéri aussi euh, Asek depuis Italie aussi yaa ngi si mbir xanaa nag di tàggu mbokk internet di lay wax ni nag suba nag Aïcha Faye madame Nia yaayu paate moom mooy ñëw di nuyu nag ñi nga xam ni ñoom naa àndoon na si weer yi yëpp nag ku si mel ñoom Jibi Bamba ak ak ki nga xam ne mooy jabaram Ousseyne am naa aussi sama ay soppee ki nga xam ne mooy Asi Diagne tuuti Yaay Sarr ñoom ñëpp ak Abdoulaye Mbaye sama chéri boobu nga xam ni Babacar may na ma ko waaye nag mooy loolu ba léegi gisuguma may bu njëkk bi ñoom ñëpp di leen remercier naan ànd bi rafetoon na trop léegi nag damay dem nopp lu tuuti nag bàyyi nag place bi ki nga xam ne mooy Aïcha Faye madame Nia yaayu paate Babacar waaw loolu rafet naa loolu rafet naa mu mel ni lu nice la loolu parce que tamit vraiment liggéey bi nice na te nit ñi apprécier nañ ko parce que liggéey moom li ci am solo mooy nga di ko def euh, ni nga ko war a defee rek di wala boog nga di jéem sa kéemtalaayal kàttan macha allah nekk la lu ñi ñëpp apprécier nañu. Euh, apprécier nañu ànd bi yaa ngi dégg du début ba fi mu toll tey Aïssa nag comme xam nañ li ko ci woon jigéen la bu nekk si këram di sëy des fois day am yoo xam ne nii mooy loolu am naa Moussa Niang moo ko ëppoon doole ba far ko loolu jàddale ko ardo mais loolu c'est normal ñu koy nuyu di nuyu tamit euh, way jur di nuyu borom këram di nuyu ay way juram yëpp yaa ngi dégg àddina moo tudd noonu yow tamit di la wax mention spéciale naagis na affaire yi macha allah di nuyu comme ni nga ko waxee ñoom tuuti yaay Sarr Abdoulaye Mbaye ñoom Khady Rose xam nga Jibi Bamba ak ki nga xam ne nii moom moo di tamit sama soppe bi saaliw xulle moom du ma ko mës a fàtte ci lu may def maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal jàmm di wax ne nit moom dina yegg ci yow foo xam ne koo xam ne yéreem bu muy sol la jël nday gumba faal yëkkati jox la ko nga koy sol kooku kon am na fu mu la teg saaliw xulle borom Zik FM le maire animateur xaritu Babacar maa ngi koy ñaanal jàmm bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di nuyu waa Sénégal yépp di ñaanal ñëpp jàmm ñoom Abdoulaye Mbaye xam nga duma leen fàtte Asi Diagne borom di nuyu Fall yàgg maar tamit maa ngi koy nuyu sama. coronavirus. <laughs> déet astaghfirullah non boobu bay mitti yàgg borom Liberté 4 di nuyu képp ki nga xam ne daal yaa ngi ñuy suivre ak foo mën a nekk si àddina bi ñu ngi lay ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yow. PG yàlla nga am ndam làmb la de ñaari xale la. Ah, <laughs> Gamou Gueye la mu daan def bu mu ko bàyyi rek. Gamou Gueye sox alors lambala rek amateurs yi ñoo ko bëgg amateurs yi moom tamit mu bëgg ko mën tamit ma bëgg ko moo tax mu taxaw. soxna daanaan la waaw loolu kaa bañ. jaase ak jaase tànk bi du féete ginnaaw waxuma ji amul ay jaasi lamba ji jaasi du fa dugga ñu kañ ñaanu yàlla lamba ji am ay jaasi. sama tànk bi du jéggi ginnaaw ngir Gamou